asalaamaaleykum askanu Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di nuyu taskatu xibaar yi nga xamante ni ñëw nañu tey fekk ci suñu jotaay bi di leen ci gërëm bu baax di jéggalu ci euh, tarde bi nga xamante ni am na ci conférence de presse bi maa ngi tàmbali sama kàddu ci jaale sama xarit sama doomu ndey Guy mari Sagna nga xam ni dafa ñàkk wéy juróom bu góor Célestin Sagna di suñu wejur yàlla jële ko fi ñu koy ñaanal suñu boroom yàlla xaare ko àjjana di ko ñaanal yàlla xëpp ko yërmande di wax Guy Marius Sagna mu muñ waaye di wax wéyjuram woowu dundam am na solo ndax am solo googu weesuwul mu jox ñu ku toll nit Guy Marius Sagna ci Sénégal ak Afrique eh, Guy Marius Sagna ci xeexam Guy Marius Sagna ci taxawaayam ba li ñuy wax état de droit soo xoolee image yi da ngay xam ni état de droit moom amul Sénégal li fi am mooy état de police loolu ñu bëgg ko ñaawlu ndaxte agression bi ñu agressé Barthélémy Diaz Ousmane Sonko ak Malick gàkku lu ñaaw la président Malick Gakou dem na ba mbaggam ci boppam déboîté loolu lu ñaaw la lu ko fi jar ndax ànd ak Barthélémy gunge ko tax ñu teg leen boobu violence bi nga xam ne dara mënu ko expliquer ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax di artu président Macky mu xam ni procès Barthélémy Dias bi li daan am 2019 wonni na lu tax loolu moom bi mu toogee ci nguur gi ba léegi saa suñu jëmee ci ay élection dina jëfandikoo justice dina jëfandikoo doole ba bépp adversaire boo xamante ni ragal na la mu fexe ba doo bokk ci élection yi 2019 noonu la def ci dossier Karim Wade 2019 noonu la def ci dossier xalifa Sall fexe ba ñooñu bokkuñu ci élection yi ñi ci des mu fexe ba taxawal parrainage am boo xamante ni ku ko neexul mu sempi la doo ci bokk mu gis taxawaayu Barthélemy Dias ci Dakar yeewi askan wi ngemb ko mu nekk candidat yeewi askan nekk candidat bi ëpp doole ci Dakar waa Dakar yépp xam ni élection yi bu jaaree ci yoon moom moo koy gañe loolu tiital leen ñu fexe def ay pexe pour Barthélemy Diaz bañ a nekk candidat procès bi dara beesu ci 2011 ba léegi lan moo bees ci procès bi li xewoon 2011 dañ di woon Barthélemy Diaz dañ ko tooñ président Macky Sall mi jiite réew mi moom 2011 waxoon na ni Barthélemy Dias dañ ko tooñ Macky Sall mënul wax 2011 Barthélemy Dias dañ ko tooñ tey 2021 muy fexe dal ci Barthélemy Dias déedéet la mu waxoon démb na nekk ci wax jooju ba léegi ñun de la waxoon démb muy 2011 ci loolu la ñu nekk ba léegi muy Barthélemy Dias dañ ko tooñ dañu agressé meereem kon ñun yeewi askan wi ñun FDS les Guelwaar tey la ñu gën a jàppale Barthélemy Dias tey lañ ko gën a ngemb tey lañ gën a taxaw ci wetam di yëgle di xamle ni le premier er décembre incha allah dinañu ànd ak moom mobiliser wu taxaw ci wetam ca Macky Sall na xam ni Barthélemy Dias mooy candidat yeewi askan wi Barthélemy Dias mooy suñu candidat. Barthélemy Diaz moom la ñu ngemb te dinañu ko gunge jàppale ko taxawu ko ba mu gañee ba mu gañee Dakar loolu dinañu ci nekk bu bu baax a baax a baax président Macky Sall li ñu koy ñaan mooy élection yu libre et transparente li woon wonni na li mu defoon 2019 mënul nekk bi yoon kon na élection yi jaar ci yoon élection yi jaar ci yoon mooy lan mooy képp ku bëgg a bokk ci élection yi nañu la bàyyi nga bokk ci élection yi liste opposition yi bëgg a bokk ci élection yi yépp muy liste yeewi askan wi muy yiw liste wàllu askan wi wala muy liste Bougane Gueye Dany wala beneen liste bu mu ci mënti doon liste yooyu nañu leen bàyyi ñu bokk ci élection yi je m'adresse au président Macky Sall mënul am le 22 23 janvier 2022 lu dul liste yi war a bokk yépp ñi bàyyi leen ñu bokk di araftu préfecture yi préfet yi ak sous yi nañ doxal yoon nañ doxal dëgg nañu bàyyi opposition bi déposer ay listam ñooñu bokk ci jongante yi waaye aussi di wax magistrat yi nañ jël seeni responsabilité li askan wi di xaar ci ñoom li société sénégalaise bi di xaar ci ñoom ñi matal ko ba lii préfet yi bëgg a doxal ñoom ñi bañ ci ànd fexe ba liste opposition yi liste yeewi askan wi bokk ci élection yi ci loolu ñi ngi ciy gërëm cour d'appel bu Ndar bu Saint-Louis wane nañ jàmbaar ak fit ndax fexe nañ ba li si yeewi askan wi fële ci Matam ñëwaat bokk ci jongante bi ñu ngi ciy gërëm aussi cour d'appel bu cees ci seen liggéey ci seen fit fexe nañ ba liste yeewi askan wi fee ci mbuur ñëw wax préfet na ko jël mën a bokk ci jongante bi loolu magistrat yooyu def ci cour d'appel yooyu moom la ñuy xaar ci cour d'appel yépp ba fépp fu opposition bi war am liste opposition bi ñu man ko may mu bokk ci jongante yooyu ndax loolu la ma ci sàll bañ ndax xam na ni bu opposition bi bokkee ci jongante yooyu sondage yi mu am wane na ko ni dina ñàkk dëkk yu baree bari ci Dakar ci Sénégal ville yu baree bari ci Sénégal commune yu baree bari ci Sénégal ndax yeewi askan wi mooy coalition bi ëpp doole mooy coalition bi Sénégal jox xol jox loxo mooy coalition bi nga xamante ni moom moo jublu askan wi moom la askan yu bëgg a jàppale moom la askan yu bëgg a taxaw moom la askan yu bëgg a fal yeewi askan woowu nag la Macky Sall taxaw tey jii faagaagal ko moo tax démb mu def jëfam ju ñaaw jooju teg ko ci population de dakaar def jëfam ju ñaaw jooju teg ko ci leader politique yi nga xamante ni démb ñoo àndoon di gunge ji Barthélémy Dias waaye ma taxaw ci beneen poñ boo xamante ni bërki démb bi nga xamante ni coalition boobu may bañ a tudd nga xam ni luubal ak gert ak corruption ak yàq ak toloxal réew mi ba ñu toogee ci réew mi ba léegi 2012 coalition boobu loolu ci lay xëy di ci gont muy coalition bokk yaak bennoo bokk yaakaar xawma ban yaakaar lañ bokk xanaa yàq réew mi coalition boobu keroog bi ñuy def conférence de presse dafa am suñu benn mbokk waa Thiès di suñu mbokk dëkk Thiès di suñu mag mu dëkk Thiès mu am ci taxawaay boo xamante ni taxawaay bu ñaaw la taxawaay bu rafetul la taxawaay boo xam ne gàkkal na deru Thiès taxawaay boo xamante ni toroxal na image yu Thiès képp ku dëkk Thiès boo dégloo Yankhoba Diatta rek barki démb ak déglu ko fan yi dinga am lu la metti torop torop torop ndax Thiès méritowul ay représentant yu mel ni moom mu dem ba ni bu cees amee ay yëngu-yëngu képp ñi nga xamante ni bokk nañ ci lal benn kawaru cees waa kooko dinañ ko taal waaw moom dafa taal boppam ba pare taal boppam ci safara weddi sa bopp taal boppam ci reniement politik taal boppam ci wax weddi taal boppam ci waccu lekk taal boppam ci transhumance politik taal boppam ci safara corruption politik taal boppam ci ñaawteef goo xamante ni waa gisuñu ci seen bopp waa Cees seen der yàqu na ci kon ku xaru ba pare ca marché ba taal boppam ci safara weddi sa bopp kooka bu ne day entraîner jeunesse su ci taal leen jeunesse su dañ koy arrêté lu tax jeunesse su di ko arrêté lu tax cees di ko arrêté moom mbubbu ministre bi mu sol dafa ëpp ci moom bu ngeen xoolee cëfër cëfëram fan yii tëb dalam ci télé bi da nga naan waa lan la ñu def yàlla waa lan la def senegal ba Macky Sall mën a jël ñu mel ni yànqu ba jatara salle de banque bi ëpp ci ñoom ba mujj ñu am ay taxawaay yoo xamante ni ku leen di gis da nga naan waa lan la def yàlla. Cees de dëkku ngor la Cees de dëkku dignité la Cees de dëkku bañ la ba jatara su xamul Cees xamul histoire Cees na delluwaat ci lekkool yi xam lan mooy histoire Cees lan mooy Cees waa lan mooy taxawaayu ku dëkk Cees su ko xamoon buy représenté Thiès ci institution yi moo xam parlement la moo xam dans un gouvernement la moo xam dans un conseil départemental la moo xam dans une mairie la dina xam ni am na loo xam ni du cëruwaa Thiès Thiès moo ëpp lool su gëstoo histoire dina xam ni ñun Thiès ñun ñooy sëtu les cheminots de 1938 buñ nee tey Thiès ku fa yëngu di xeexal opposition wala ngay bañ nañ la taal ah ku wax loolu xamul ni le 27 septembre 1938 ay doomi Thiès dañu jàkkaarloo woon ak pouvoir colonial bi nekk ay cheminots nekk ay ouvriers ñi nekk ay peintres ñi nekk ay chauffeurs ñi doon xeex. ngir amélioration seen dundin pouvoir colonial bi envoyé leen force de sécurité ñu tiire ci ñoom le 27 septembre 1938 à la cité Balabé ay doomi Thiès tëdd fa 1938 ba léegi ñooñu ñu leen di jooy duma duma duma mus a toq ci di fàttali seen tur ndax ñooñu kenn waru leen a kenn waru leen a kenn waru leen a fàtte Thiemoko Konaté Mamadou Gueye Samba Gueye Alioune Cissé Abdoulaye Thiam Domingo Mendy ñi ngi tëdd Thiès le 27 septembre 1938 ci xeexal ay cheminots Yankhoba Diattara de xamul ni ñun waa Thiès ñun ñooy sëtu ñu tëdd Thiès le 27 septembre 1931 Yankhoba Diattara da xamul ni ñun waa Thiès ñun ñooy sëtu Ibrahima Sarr la grève des cheminots de 1948 grève boobu nga xam ni mi ngi tàmbali le 10 octobre 1947 jeex la 19 mars 1948 di grève bu yàgg. nee nañ sax ci histoire syndicalisme ci Afrique de l'Ouest mooy grève bi ci gën a yàgg grève boobu waa Thiès jiite ko am ci ay taxawaay ba Sembène Ousmane bind ab livre les bouts bois de Dieu rendre ci hommage le cheminots de 1948 rendre ci hommage Ibrahima Sarr ba Ibrahima Sarr bokk na ci ñi ëpp ay turandoo ci Afrique boo demee Mali walla nga dem Niger bari na Ibrahima yooyu dégg ay turandoo Ibrahima Sarr la Yankoba Diattara moomu de xanaa xamul ni ñun waa Thiès ñun ndawi Thiès tey ñun ay doomu ay sëtu Ibrahima Sarr ak ay sëtu les cheminots de 1948 Yankoba Diattara moom xanaa xamul ni ñun ñun ñooy rakku génération malsaine de 1988 ku dëkk Thiès ku ne xam nga lan mooy. jeunesse malsaine keroog ba abdu Diouf waree dugg Thiès xale yi Thiès mobilisé wu ndax Thiès nekk dëkku bañ di xeex ngir alternance ñu mobilisé wu Thiès xañ Abdou Diouf mu dugg Thiès 1988 ba Abdou Diouf traité leen de jeunesse malsaine ba Diattara boobu bu xamoon histoire u Thiès dina wàññi gën a dal gën a nite gën a jëf ak wax lu méngoo ak Thiès lu méngoo ak valeur Thiès lu méngoo ak histoire Thiès lu méngoo ak tradition Thiès lu méngoo ak palaasu Thiès ndax cees dañ koo wàcce palaasam ñun ñu war a delloo palaasam Thiès bu xanaa xamul ni ñun ñii ñun ñooy ñi nga xamante ni ñoo yoroon xalaatu 2000 nekk lycée El Hadji Malick keroog ba Abdou Diouf waree ñëw Thiès le 24 février ñun ñooy élèves yi nga xamante ni ñoo bloqué woon Thiès ni Abdou juf du dugg cees ba police ñëw encercle le lycée Malick Sy de Thiès ba police ñëw dal ci suñu kaw blessé ñu gaañ ñi les blessures que je traîne jour boobu xanaa xamul ni xale yooyu màgg nañ xanaa xamul ni Thiès dafa am place ba Diattara moomu ah ñoom de wàcce nañ cees place am ñun. ñu bëgg a delloo cees palaasam moo tax toroxal bi ñuy toroxal Thiès fan yi ci télé bi ci rajo yi toroxal bi ñuy toroxal Thiès ci weer yi ñu génn indil ñu nitu Thiès Thiès doyal nañ ci Thiès doyal nañ ci sëkk désormais nous défendrons l'image de Thiès ñun dañu am mission li nga xam ni mooy tradition Thiès di bañ di fulla di fayda di dëkku ngor di dëkku liberté ñun suñu génération dañu am mission continuer tradition boobu dañu am mission aar Thiès taxawu Thiès yiir Thiès ba ñi nga xamante ni dañu bëgg a tilimal deru Thiès bu fekkee ñoom dañuy xaru ndax les délices du pouvoir ñoom nañu xaru waaye Thiès du dëkk buy xaru Thiès dëkk la boo xamante day dund ci ngor ak dignité bu fekkee ñoom dañu bëgg a taal seen bopp ci safara corruption ci safara wedd sa bopp nañu taal seen bopp waaye Thiès du dëkk boo xamante ni dañ fay taal kenn Thiès dëkk la buy défendre ay cause ay cause yu noble Thiès Yankhoba jatara moomu na xam ni Thiès de mooy dëkku Ousmane Ngom def ay jaloore yu rëy rëy Thiès nekk maire yi nga xam ne ñoo gën a marqué histoire u ba Diattara boobu nag xam ni Thiès mooy dëkk bi nga xam ni Léopold Sédar Senghor moo jëkk a nekk maire Yankhoba nag xam ni cees mooy dëkku Boubacar Sall le lion du kayoor boo xamante ni turam wër na Thiès ci jàmbaram ci taxawaayam ci aar Thiès ci wiir ci ci ci yir loolu metti woon nañu trop ginnaaw wax ju ñaaw jooju mu teg ci Thiès Dakar la ko waxee ñu bëggoon a wax ak dakaar bëggoon a wax ak population dakaar ak askanu Sénégal fii nga xam ne fi la ko waxee ngir ñu dindi loolu ñu fóot deru Thiès ba mu set wicc ñu wax waa cees ni ay gor lañ nit ñu bëgg seen bopp lañ nit ñu fonk seen bopp lañ képp koo xamante ni da am aspiration nekk ci institution bu mu mënti doon ngir représenter Thiès dafa am noo xam ne da ni war a mel dégg nañ ko muy wax ci tele yi di wax ay jaar-jaaram jaar-jaar yooyu muy wax ci boppam ñun ñoo ko ci jiitu ñoo ko ko gën a xam fuuf ndax légitimité bi muy wax sur le mouvement élève ak le mouvement étudiant ci boppam jàpp naa ni ñun ñoo ko ko ëppale fuuf ndaxte lycée Malick Sy bu Thiès ku fa jaar xam nga ko ñi coow seen bilan walla seen histoire syndicale li ci ëpp dañuy wax fac droit wala ñuy wax euh, université Cheikh Anta Diop mais ñu ci boole lycée El Hadji Malick Sy de Thiès ndax ndaanaan ya Thiès dëgg waa Thiès xamante nañ soo demee lycée Malick Sy lañ leen ràññee lycée Malick Sy lañ leen xamee ñun nag ñu am un contrat qui nous lie avec Thiès contrat boobu ñu ngi ko rëdd ci deret le 24 février keroog bi Abdou Diouf di ñëw Thiès le gouverneur def tout pour corrompre ñu ñu bañ. la présidence de la république yónni ñu ay mission à Thiès ñu dig ñu ay bourses étrangères ñu bañ la police convoqué ñu wax ñu nañ surseoir suñu assemblée générale ñu bañ ñu dem ba amatuñ benn pexe ñu envoyé ñu ay nervi sous le baobab di lycée Malick Sy ñu agressé ñu les élèves de Thiès jël ma dugal ma ci oto yóbbu ma à l'hôpital régionale de Thiès toute la jeunesse de Thiès mobilisée wu ce jour-là ñëw ceinturer l'hôpital de Thiès régional assurer sama sécurité ce jour la la un contrat de confiance boo xamante ni dox na sama diggante ak Thiès dox na sama diggante ak jeunesse su Thiès ñaanuma benn yoon trahir contrat de confiance boo nga xamante ni dox na sama diggante ak jeunesse su Thiès dox na sama diggante ak Thiès dox na sama diggante ak waa Thiès daray àdduna jaralu ma waa Thiès jëppi ma daray àdduna jaralu ma ndawi Thiès jëppi ma daraw dara daray àdduna jaralu suñu mag ñi nga xamante ni dañ leen a boom ci jihaad ñu nekk ay martyr tëdd ci suufu Thiès daray àdduna jaralu ma suñu mag ñooñu jëppiñu pour ñu bañ ñu jëppi suñu taxawaay lan la mooy bis bu ne dafa am mbubb mu jekk ci Thiès am nu mbubb moo xamante ni jekkul ci cees ca Thiès soxlawu ko mbubb mi jekk ci cees mooy bañ mooy ngor mooy fulla mooy taxawu sa askan fàtte sa bopp yàlla nañu yàlla dimbali mbubb bu bis bu nekk ñu mën a sol mbubb boobu kon dañu ñëwoon ngir wax ju ñaaw jëf ju ñaaw jooju ñu teg ci cees ñu raxas ko ba mu set wicc wax ni suñu candidature fële ca Thiès li ko motiver dëgg dëgg mooy ñu joxaat Thiès dignité am ñu joxaat Thiès fierté ñu joxaat Thiès honneur ndax cees mënul nekk Thiès lu dul cees boo xamante ni day dese ngor day dese dignité cees bu amul ngor amul dignité duutul Thiès ca am na ñoo xam ni suñ leen toppee cees du deseeti ngor du deseeti dignité ca bu boobaa Thiès day xaru comme ñoom ni ñu xaroo wala Thiès day taal boppam ci safara corruption loolu la ñuy bañ moo tax tey Thiès ak doomi Thiès la jeune génération au niveau de Thiès taxaw ngir aar Thiès ngir aar image u image u Thiès loolu moom laa bëggoon a def ci sama introduction sama sama sama communication